mbokka yi ñu nuyuwaat leen rek si Gambian si TV comme ni ñu ko dee defee saa ne rek tey nag ñu ñëw fii nga xamante ne mooy Bijilo seet si ki nga xamante ne mooy anti ñu ngeen koo xamee si anti cousin tey nag ñu seet si ko lii nekkut foos nekkut seconde at bu jot weeri koor bi su jotee dafa génnee li nga xamante ne mooy ndogu. di ko jox jaamu yàlla yi yenn saay mu yóbbu ko si jumaa yi yenn saay mu yóbbu ko si public place yi nga xamante ne nit yi dañ fay nekk yépp ngir ut tiyaabo mu nekk li nga xamante ne am na solo lool ku ne xam ne Anta li muy def ci biir doom mi am na solo ah, moo tax nag ah, tey nag ndogu bi nekkaat beneen édition bu nga xamante ne daf ko dee def ñu seet ko wax ñu tey lan la moo def ak fan la moo dem ak ñan ñoo ko ànd ak moom ci ndogu bi wala moom kese moom moo ko def ah, dina nekk lu am am solo dinañ waxtaan ak moom dinañ ko bàyyi mu nuy wanteek askan bi nuyu nañ asalaamaaleykum ah, mbokk yi um, asalaamaaleykum Gambia Talent asalaamaaleykum everybody that's watching di leen nuyu di leen sarga di leen tataga di leen welcome ci um, Yasin's Kitchen feeding programme bi Gambia Talent is not the first time they with me so sumay doom rek a fa nekk from PAOS downwards ñoom ñëpp may doom lañ so suñ ñëwee fii dañ war a ñëw seen kër la nga ñoo introduce sa bopp rek for the benefit of ñu nga xamante ne ñu ngi seetaan xëy na xamuñ la nga wax ñu kan mooy anti Yacine ak Yacine Kitchen Well, Auntie Yasin is just ordinary person uh, Kohamne xam uh, is very passionate about Toga. Lo xam la um, childhood luma ma lu eh, luma janga suma xol bi lu ko tamit dafa nekk loo xam ne dafa sax ci mm-hmm. so and um, I've been doing maa ko di def bu yàgga mm-hmm. te ba tey maa koo def bala ma kontaan ma tooga jox nit ñi ñu lekk mm-hmm. naam léegi sax tooga bi demeewul noonu pour man xale yi ñoo dee tooga mm-hmm. te xale yi ñoom it xale yu xereñ lañ ñoom ñoo amee tooga bi fi mu nekk nii waaye léegi léegi xam nga rek eh, ma dugga def tuuti waaye su may def sax dañ duñ nangu ba kooku mooy Yaasin Jaalo suma real tour is Yacine Diallo waaye ñu gën ma waa Banjul yi xamee ma si cousin Diallo mm-hmm. um, ah, ku ne Yacine wala cousin Diallo xam ne bakku bi dafa dama si sa loxo <laughs> togga rek ngaa def ah, te one thing li ma gën a nees sa togga yëpp danga dee use natural ay jumbo yeeg yooyu noonu yu baree bari si sa ay togga ah, doo ko si dee use noonu mu nekk li nga xamante ne ab may la kañ nga door di togga waaw pour pour wax dëgga bu ma dooree di toog a yàgg na parce que su ma fàtte ko bala maa am door naa di teg mbanda waaye boobu nu nekkut woon ne dañ ma ko jéemantal dëgër fit rek ak bugg a tooga suñ añi kër am na yenn yoo xam ne suñ amee xew wala sarax wala lii dañ ma dee jox ma dem next door duñ nangu sama tooga ko si kër gi because xam nga géer yi xamewuñ leen tooga ma ne so dama ko teg next door suñ laajtee ñu ne dañ ko santaane so yàgg na torop bu ma dooree di toga and everywhere I go I just love to cook um, bu ma nekka Norway i foofu laa demee school jànga mbiri tooga waaye uh, dama dëkkoon downtown so hale yi góor yi most of them dañoo ñëw suma kër suma toogee and um, tooga bi I am not perfect I just love it te tooga bala ngaa kontaan bala nga bala moo baax nga kontaan di ko def te man loolu la ma yàlla may dama dee happy su may tooga because soo toogee di kontaan di tooga koo jox lekka bi daf koo mun a lekka waaye danga koo seetee sa own kër soo soo meree ngay tooga ndax tooga bi dina baax du baax soo man moo tax um, I don't remember fan laa mun a sa teg sujeer and I'm not happy it's just in me and um, loolu la def bu ma nekkee Norway waaye America nag dama doon liggéey leneen nekkuma woon di liggéey de liggéey fa briefly rek si yenn restaurant mhm. fast food restaurant and uh, ci hotel Why I wasn't really doing because ñoom foofu balañ la hire as as a chef or anything you have to go to school in America and I did not want to do that again. Even when you have your certificate from outside, your American, America ñoo mel noonu even so, nekkee doctor sa fok nga at school onga challenge di bar in in doc pour def you doctor. when it comes to the toga yi tamit um, bu ma jike uti liggéey as a cook dañ ma wax ne ma mënuñoo um, translate the Norwegian um, certificate to fuck my them at school. And I'm like, well, whatever. And then you you hire me to Marriott Hotel. Boneka perimeter mall and I was working there. Why chef Bifanekon was a kind person and then mujis the potential in me, neki hamna limodef. So you buried of madan let madefko. And if it fruit tray you know no fofulako Jamie nga hamne um, because dañ ma woon naka ndi fruit tray is just artwork boo xam ne mun nga koo def naka la ndig ngi recall suñ amaan xew in Atlanta bobu fekka duñ daan def yooyu man because of maa ngi ci hotel bi and I see how it is nga xam ne dañoo def ci banquet like uh, two hundred and fifty people or three nga jël tray bo xam is a big tray nga decorate ko with different food because um, dañ ma won like a day the next day ki won. man ma def suma bos mu daaxa bosam benn American black American ma suma bos gën a bari gën because it's just about creation and then mu it wasn't she wasn't happy but after xam nga rek man I don't duma dee merantee it so ñu gannaaw gi ñuy work together waaye euh, chef bi moom gis na ne So si la ma laaj mm-hmm. ma ne ko waaw dama dem school for it so noonu muy may jox more responsibility ci waañ bi mm-hmm. than just prep because dañ ma hire woon as prep mm-hmm. not prep person not prep cook sax prep person di defar dogal yu sew yee yooyu but then after dama daan dem si line bi su euh, euh, cook bi nekkee foofu ma dem di ko jàppale and it helped me a lot tamit because all that lépp looy jàng rek may practice bu baax yàlla daf la dimbale because practice mun ngaa def théorie bi practical mo mo foofu foofu ñu ko ooyee apprentice waaye mooy comme apprenti waaye indi Gambia soo apprentice apprenti nga ñu tuutil borom déedéet du loolu sax because mun dañ la dañ dee tuutil borom waaye fekk loolu moo la jox more knowledge because uh, liñ dee wax ne ku jàngi jàngaan mm-hmm. mooy loolu nga dem di jànga ba mm-hmm. mokal so sa sa sa sa théorie bi soo ko apply yu ci practice do perfect mm-hmm. because foog nga def foog nga def li ñoo ooyee hands on ci lépp jànga nag suma xam-xam soriwut waaye ci li ma understand lépp loo jànga amul just mbiri tooga Lepolo janga, jàng dang practice rek danga dang de come out to be good or perfect mm-hmm. perfect mom, léegi léegi man duma dee use that word because I don't know uh, dama when I do stuff people tell me mm-hmm. and I don't want to tell myself "No, this is perfect because I am perfectionist so dama bëgg a lu def rek mu jaar but I want people to tell me not me telling myself always da nga dee bëgg a soo liggéey nit yi réet la ñaata la ak yooyu noonu naka la liggéey bi mel comme nit yi compliment la appreciate la Well, in the Gambia, not is is the opposite because I remember they tell the neck at the oat soya sauce, and it was funny. I'm not trying to take the credit in the Gambia, but I fully recall in 2017 when I started this cooking program on GRTS. Mm -hmm. Gambia wasn't using soy sauce. Mm -hmm. And we introduced it because the suñ demande tooga si iftar bi gars yi dañ ñu dee na ndax lii but now it's so it's too everybody. oh my god everybody is using it which is good mm -hmm. which is good am not like your hamne, eh, they're not the best I'm not gonna promote the people that are selling the best because ñun boobu lañ dee use all the time mm-hmm. dama di jënd carton bi moom use suma kër ak su ñooy def iftar bi yëpp moom laa use mm-hmm. but we do use maji once in a while mm-hmm. especially when it comes to ganaar Why? Then gis mbanda bi ba mbanda bi daj ni magee duñ ci def ay yeneen. loolu moo ma jaaxal ñu baree bari suñoo tooga mbana dinañ jël jimbo yu baree baree bari saf-safal different saf-safal aja ak yooyu waaye man witness naa sa tooga gis naa noo ko dee defee doo si dee def loolu te still dafa test good. waaw because what is the secret behind it. the secret behind tooga mooy take your time one and then use the local remedy um, ingredients like jaba jambo yaa ngi fi saf ba bugg dee ñun dañoo def jaba jàmbo dañoo def nakalturaat yi um, uh, what they call it uh, green pepper bi léegi is bu njëkka ba green pepper nit ci duñ ko daan use waaye man bi ma nekkee aw dama use green yellow and red peppers I use those yooyu yëpp dafa dafa yokka um, flavor bi and then when it comes to ay cu ay yi all is about rosi take your time rosiko ko xale yi tey léegi léegi dee def life like I used to waaye bu njëkk ba su ma daan tooga dafa yaaga you see comments like that dafa yaaga and I laugh waaye tegal ma teg nga teg ma rosi mu dog yow nga rosi fat fat ñulu ñu yëkka nga mos nga seet dina di nga gis the difference in it because secret bi mooy loolu take your time when you cook when you cook especially Gambian food Gambian food so takes a time to carry on. And then, to be honest with you, I use other seasoning. Why it's not like the dee check your xam do du am yenna yoo xam ne handful, I use them I use some kind of seasoning your xam you Indian seasoning while Indian seasoning, we, you should be very careful because first time I was introducing that in the Gambia in 2017, I did not emphasize on it, but I know how how much I would put in a in a in a in, in, in do, my comments have become man unless my one need moo tax be in the book it was difficult for me because ñun hamga nga niñ la jaam jéemantalee tooga you just take and put and yala daf la dee jàppale mu mu jaar so for me is all about um, naka consistency ci li def because so so so menzo man suma menzo ménzoo dina dem de waaye su ma defee nii def ay I naa guma rek ma def nii te yàlla daf dee def it comes out right. because you are used to it. Um, well because since xale mag yi duñ daan nata. Mm-hmm. ken du dee nata ñoom dañoo jël rek def moo tax nga soo nekkee out nit ne la bindal ma recipe daf dee difficult so when I was writing my book I don't know maybe we can talk about that later but it loolu mooy woon suma biggest challenge because luy content bi well we have like um, African and Western African Western moo fa nekka because we do we have the first one is the recipe western african african moom la western african recipes ñoo nekk ci biir and uh, we have about the first one was like 100 pages i think it's 100 pages i can remember and then the second one is a little bit smaller mm-hmm. but the challenge with that book was like i dama daan bind lu bari. liggéey bug bi wala da nga am ñu la si jàppale wala da nga def some research. not research per se. because what happened was during um, but dafa am benn year boo xam I was home, then I'm on accident, and I have a fractured uh, shoulder. Mm -hmm. So I was sitting down, and I'm like, what am I doing here? 2011, so my door, the I was Money, you know what? I wanna, but then I try, I cite, I recite to see how, but it was very expensive those days to write a book. But then one of my niece, Kuneka Fele, I said it all the time, they jobate, Kuneka, no way. so mom def dee just my post The madan toga rek post The toga di post Why um, feka mangi ngi binda anga ko bindal so ma ndey call ma ñu how my moo contact How my maa contact I can't remember but I know that through the struggle because the daan def like ron lay go for me, and I will put little bit in it, not a whole bunch, but I used to help and I used to be very vocal on social media. So through that line connected, manak ak mo amon bena halebo xale boo xam ne xale bi ndeysaan dafa amoon um, seen waajur yi abuse thing so you amoon group buñ form from there laa meet I think now I remember foofu laa ko and then mom, Hamud, maman, man xamuma ko waaye we related so legi ci waxtaan rek mu wax ma kana yaaya ma ne ko xay xadi mu ndaw suma sister la suñ ñaari yaay ñoo childhood friend bemak. mag ba pare yaay maamam suñ kër through that so the other day mu ne ma man dama la gis nga post like yu bari and I know ne you're good at it why can't you put it in a book ma ne ko xay man maa binda ay manuals waaye I don't know how to go about it mu nekk ku kanyan. a kañaan mu ne rek mu mu dem online because man I'm not savvy when it comes to um, the media so moom mu dem online and mu research research rek ne ma link bi which was a Swedish company ñoom ñoom dangaa binda rek eh, sa sa sa template B. they have the template all you do you just write and then it's a book form template B. it's a book form page to page to page to page and then but loolu laa doon wax ne foofu challenge because mm-hmm. yi ma daan binda dangaa gis is def mel many portion five nit mm-hmm. mane one because we were not used to measurement so mane uh, one tablespoon black pepper nga wa portion five need but then when it comes to putting it in a book when I because book be yep yep the matoga everything ba a netaalaat the whole book I went back and cooked everything because I want to know how it tastes so that people when they buy the book mm-hmm. they will get it right because reading a recipe is the most difficult thing so when I did that man, whoa! wow one tablespoon si nobody will eat it. Mm-hmm. because xam it was marginalised la dama ko doon marginalised. Mm-hmm. si suma brain bi di xalaat ne comme ni maa def maybe it's one tablespoon but mm-hmm. when it comes to me moo tax ma jëlaat ko toogaat tooga ko pour ma ham exactly ñaata lay def. so when I take the one tablespoon you know ne bena sujeer bu em soo defee benn tablespoon poobar loolu dafa ëppa eh, you don't even need one table one teaspoon sax dafa bari for that because black pepper is is very strong so noonu laa defee loolu ba den fat fat ma ma ma ma seen ko yi ma binda yëpp mu ne ma waaw ma ne ko well it was there already dafa nekk rek I did not know how to go about it so noonu la it was very easy and then my husband was the one more eligible, Bou the one suma ma because mom, mom, mom, he's a master's degree la am in in in business administration and other things and he's very intelligent he helped me a lot with the grammar and the spellings and all that Mom, mom, ñëw suma ma mu proofread waaw maanaam moom ñoo doon edit because editing a cook book could could definitely if you tooga you can't Mom mom language be la rectify why when it comes to the the the recipes and stuff he can't because fuck man ma how, mm-hmm. def ko ne ko nii la because léegi legi, moom mu correct dara ma ñëw ma ne ko not correct mm-hmm. ma Why waaye it was like a team me and him mm-hmm. and then the new new contact um, Amazon they produced the book not produce, they publish it, mm -hmm. which was very cheap. Why? They make more money than I do. Mm -hmm. I remember one time. nga doon make uh, Amazon Well, I don't know and I cannot say that one, but all I can say is they make more money than I. Because nyom uh, nyom ñooy all I do is just, just give them the content. Mm -hmm everything else nyom ñoo koo def ñooy arrange everything so nyom, they make money off of <laughs> everybody who writes. and they, you can go there any day from any time and just click and order it man defuma dara si so nyom nyom. I remember the same question Powers was like ñaata nga make but it's it's funny I mean yes I make money from it yes but it's not like li Amazon di make man duma ko because now I sell more of the e-book mm-hmm. online uh, the e e e e electronic bi mm-hmm. I sell more of that than the original book still I sell the original book yes it's there because uh, so fake ne book be corrected ñoom duñ publish so they they they still selling both books every month they give you what you supposed to have Then la code they send you a mail and then it's in your account because you have to give them an account number but it was more bi eh, just been la daan and a di than now why now it's still selling mm-hmm. yeah anti Yacine ah, mu nekk lu am solo ndaxte si jamono juñ nekk nii depuis sa maam ba léegi ah, soo demoon sëyi sax te mënuloo tooga dañ la dee delluwaat seen kër ah, nga jàngi tooga jamono ji ñaata xale nga tireen ci wàllum tooga bi nga xamante ne yaa ngi ko def at least nga xamante ne dinañ mën a demal seen boppa wala yaa ngee liggéey ak ñoom ak comme ni nga ko buggee bari nañ because we start ñu ngi start ngeen um, jégal ma léegi léegi angale bi ma dugal because I'm trying my best pour not to Why? bari nañ because maa ngi door uh, di work with xale yu young yi depuis 2017 laa door di liggéey ak ñoom ci mbiri tooga bi waaye restaurant bi um, ci mbiri iftar bi Why restaurant bi ñu ngi ko ubbi 2014 um, dañ ko ubbi end of 13 14 ubi and um, recipe yuñ fa jaay I um, I created them. Some of them my son Mohammed Moko create, because mom time he's very smart in the kitchen. He did film production the def. Why boom neke very young in America sila door wine. So he's very good at it because he, Muhammad in the kitchen, man, man I'm not good for gaaw to for men. Now ni Muhammad is the is managing the kitchen wala yow manage kitchen. Well, we'll get to that. li my mom. moom uh, dafa liggéey si fast man fast food bi ma liggéey I was just a cashier. I was in behind because my I work for McDonald's um, Taco Bell a little bit and then KFC five years. KFC, I wasn't in the kitchen for food cashier Yen Yenen yep cashier because for, mostly cashier because they have a cook kui new their neck she she out, especially KFC doing the fried chicken because it's not a no brainer. The fried chicken they have their own recipe which can do communa copy. So you doing their neck of we're just there. So Mota, I'm not used to make a ci restaurant ci as a cook because you have to be very fast when you see Mohamed behind the scenes you think that she's a trained chef but she's not but she's very good at it because danga i am self trained tamit so back to your question how do you train bari because Lima ma because we have um, come many the chicken afra mm-hmm. we I created that because fast food lañ am so I wanted to to try to do the chicken afra, mm -hmm. but the problem was it's not a big place, mm -hmm. so I cannot have um, alma alma um, grill. So what I did, I invented put defco like a pan grill. That chicken afra bobononu is the most easy but difficult because xale yi léegi am na staff yoo xam ne legi ñu defaral la ko ku la toogal pepe and sometimes it just get to me it's very easy in a easy part pan grill uh, comme gars yi ko xamul rek mooy comme def ko ci bi frying pan without dueling, all you do you smear uh, uh, margarine moom lañ daan use while now I stop because depuis bi café bi ube, ba this year because li tax ma stop margarine bi because xale yi they don't understand margarine is expensive it it it kind of make the food taste better Why dafa cher ma jënda siwo siwo def ko si restaurant bi one week ñu use ko yëpp I was so pissed so I am like no so we just take like oil because you can use oil oil bi do ko diw rek nii si ci frying pan bi fekk ganaar bi fii lañ ko dee prepare everything we prepare it here and take it to the restaurant so dañ ko dee whole chicken bi mom lañ they dog into half bu then ñu ñu chop ko into pieces and bag bag them so you suñ demee dañ ko dee freeze suñ ko freezer yow so soo so I amee order what you do danga koo génnee nga too ko ice bi génna and then you season it soo ko eh season book, just dama mix seasoning and take it there seasoning and other stuff nga def ko chi ba buy ko mu five minutes moo the cafe is made to order what people that don't understand what made to order is mooy dangaa order call new defaral la because we don't cook and put it there because fee capacity be is not there pour nga def comme McDonald's or comme ku fi def yaa ngi jaay ñi stale food Toga di joxe most of people I'm not bashing anybody but most of Gambia fii because amulo amulo the clientele to toga a whole bunch ni KFC di def ñun KFC every two hours because ganaar gi soo ko every two hours is stale after the two hours dañ ko deep dañ ko discard and then su fekkee jeexut li ñoo def ñu jël ko diiboon ko génne ko si yax bi ba pare def ko barbecue lifin barbecue chicken barbecue ñu def ko loolu o other stuff buñ ko war a def wala yeneen yi dañ ko dee jénne sax mais ah, because xam nga soo nekkee management nga xam ñëw yi noonu so the the what they call it li ma doon wax rek di chicken mm-hmm. soo ko bàyyee xel boo demee xew in Gambia ganaar ganari uppa yëpp daf the wow fast sadar so ko de nii nga gis muy muy ruuse mel ni xam nga naka laa ko mën a bi dafa war mm-hmm. any ganar botoga tooga dafa war mm-hmm. so moyis soo gis nga soo si pan grill bi all you do is dangaa gis man lima de ba pare dafa am daf de am li ñoom sànni ko si grill bi and then let it sit there for a minute or two and then nga toon ko then dina door di di di génne ndox and then man lu ma dee def I put it aside pour mu mun a nekk grill dama génne ndox bi eh, drain the water and then maybe season it because dañ dee dice I different li nakalturati linyong tamate you can legi. you are hearing me i'm telling you how to make it <laughs> yeah so linyong lañ dé dice that fine dice lañ ko dé def oyé fine dice hala yi duma leen ko trainer force daf dee nahari because you take if am paaka bo de use paaka boobu moom nga ko dee dice because it's very it's not difficult Why soko munut why legi legi suñ ko defee once daf dee difficult waaye after they get to use used to it nga dice ko ba mel ni da ko da ko blend ci machine because man loolu dama ko daan def ci lopitaan bu ma daan liggéey dañ ma tegal saako li ñoom ma dice yëpp so that's how you do it dañ ko dee dice après dugal ko si fridge bi so you take a tis uh, benn tablespoon so defee ganaar bi pour mu am taste you put that in there nga waaye siil ndox bi liñoŋ bi mu ngi am ndox ganaar bi mu ngi am ndox soo yu nga génnee ganaar gi not a lot nga cee def mm-hmm. pour mu jos indil ko taste bi mm-hmm. nga génnee loolu yëpp tuur ndox bi ba pare bi ko dafa within minutes mu ñor waa xale yi benn problème bi ma daan ama ñoom mm-hmm. su ko defee ñu day use su ganaari Gambie andi yaa seen lii mu ngi génnee deret ma ne leen just poke the, uh, the, the, the thing, jilal knife nga poke ci digga when it's not uh, would direct, then ñor Why waaye mu am ndox ma ne ko di ndox drainal ndox mi nga pan nga grill ko ci pan bi mu grill daf ko grill very nice and then you put your sauce depending on what sauce you want barbecue hot sauce or sweet and sour whichever sauce you want you put it there and ñeneen spicy ñeneen ñi honey barbecue you put it there with the raw onion flip ko flipaat ko génnee ko that's it boobu mooy woon the biggest challenge bu ma am ci xale yi because they are not used to cooking ganar mu mois waaye ñi ma ñëpp de most of them moo fuñ dem pour uti liggéey suñ ne incline Inc lañ jógee rek dañ leen cause plaster ink lim lim li jar ci plaster ink because people don't stay in fast food du feel rek in America they don't stay di nga am few loyal ones yoo xam they stuck with you they will stay But most of xale they live with me here so I train them and I know ba pare ba suñ <laughs> they get scared because when I try it I can tell them what is wrong up till today kiggéenamuna toog a fii léegi-léegi mu juum ci toogaam yi waaye tooga moo mel and I understand that and I don't bash nobody for that why dama leen dee wax rek because benn bés uh, daf not talk a super and then mu mu def mu diwtiram bi manke because ñun wa Banjul lañ ñun dañ yaroo dañ yaroo ci especially Banjul Central ñun supa duñ xaar bi supa bi ñor ñu def diwtiir we don't do that suñ tegee rek ba génnee man dama dee préfère ma dugal koŋ yi ba génnee koŋ yi den mm-hmm. ma def diwtiir fekk li yëpp dem na mm-hmm. ma def diwtiir and people dañ duñ liñ understandut mm-hmm. dañ foog ne suñ defee diwtiir bi waxtu boobu su supa bi paree du am diw and that's that's not accurate because diwtiir bi su su su Super bi ngeeree rek diwtiir bi dafay nekk ci kaw so what she did mu ne diwtiir bi mu def dafa tuuti and then mu def ko ci almost bi moo waaj pare so man ma ñëw ma mos ko ma ne ko ah lu xew ma ne ko kañ nga def sa diwtiir bi mu xaxataay mu ne maa ngi koo def maa ngi naan bu anti yaasin ñëwee rek dina ma wax lii ba den moom dafa nekk xale boo xam ne uh, knock on wood five years la am ak man and uh, for now, this is the sixth year. Mm -hmm. She is very, very. amul benn mënuma sika sika bo. Hamne gisna gis naa ko ci moom ba pare Wow, wow, wow. ne nii waaw rek la tegal nga dafa jafe ci xale is a a little bit older Why? just in her thirties not not that old. sometimes da have difficulties dealing with some of them ngeen ne defar lii wala du nii ñu def ko own way. Mm, not not not passé xëj na léegi mu am waaye I mean si restaurant bi I had people yo hamne ne na because manduma fide neka all year am na benn time ma ñëw fekk yena staff yo hamne man xaw ma leen ah, dañ hire when I was in here ma fekk in si kitchen bi nyu ngi for this chicken afra and then they were cooking it like with pepper soup or chewy chewy I don't know what and I'm like what what are you doing ma laaj ko mu and when you say that to me at least sula la ne this is not the right way nga ne nga ko mu la because especially ko hamne ne moom moom place bi mu laa wax nga ko nii ko I just laugh because I don't want to say much because sometimes um, communication that they make a problem. you say something they interpret it wrongly. So I maneko, this is not the right way to do it. So muge, wah, chirondal why xam nga waxut man. Mm -hmm. So I just step out and then I have to trash the jël order be because man lu ma dul lekka du ma ko jaay that's me loo xam ne xanaa nekkuma ci restaurant be? because léegi léegi mo am yo. xam did dina xew ma am complaints but bu ma ko yëgee your money will be refunded and uh, we'll give you a better one Because lo, loolu keep people keep asking me why plastering still function, these are the things because we try our best mm -hmm. to make it perfect for everybody that touches that step their foot there. Uh, ma la uh, uh, manage is here the reason why we open plastering is because Muhammad is here because man yàgg naa def business fee. Why I I have no dream umasa pour business fee by COVID. I mean experience you have some thing fee wala not quite why i've heard stories people who be sent restaurant and then end up take ko oh, am na ko xamne xam na ko sax ubi restaurant am mu ngi nekk america bàyyi ko gannaaw man li tax ma xam the the the whole thing about it dama pare woon a jël place boobu so borom place bi muy doon waxtaana man mu ne ma I hope ne fii nga ka ma ne ko ma ne ko waay mu ne ma because ki ubbi woon fii um, dëkku fi bon man I will not do that ba pare mu ne dañ doon embezzle imaginal ngaa jaay ba pare di wax nit ki ne ko jaayuloo No, no, no, I mean, if you if you're not strong here, so Uber business, you end up closing it, especially the fast food, because restaurant, a lot of people don't know a restaurant Barrywood Hallis, but the finger they muna make a Hallis, moinga am chain. Why so I'm a restaurant is a struggle. But mm -hmm. we don't we're not used to. Then buga sun business direct. Boom and it don't work like that. Especially so they they can see West Union. We live in America. Man, I live there for 17 years. I live in Norway five, and then I live in Canada from 2007 up to date. Fufuladika. So it's over 10 years. Mangidika Canada, it's fairly 17. You know, all my life man out, and I see business be pare restaurant, bena bena lifin la buga tell everybody that is listening. Restaurant is better so ko start. Let it be family. Um, I listened, I, uh, Colonel Sanders, my Kentucky Fried Chicken, mm-hmm. hanga sofa so far you listen to, dengajis, especially when you are in the management, mm you watch the videos of his life story restaurant doo ñëw rek ñun looloo ñu sonaloon Plaster Inc bi ko just ubbee because we did not have a family member that was in it other than Mohamed everybody else was hired overhead bi moo la dee rey because you pay salaries right now I have like twelve people that I'm paying salary right now loolu you are talking about fifty plus thousand every month moom ngaa fay salary so xam nga su fekkee ne da nga am family members your hamne, they are not expecting money they are doing it to grow the restaurant then you can make money because imagine a fifty thousand bobo. I'm on five xale Your hamne, ne suma doom line. Your hamne, they are willing to work and then you will give them something but it's not like salary because the, the business is theirs loolu moom moom la nit understand? understandul people ask me all the time they want to open restaurant and one thing I will first ask people ndax danga am passion for it ndax danga ko jànga ndax danga for the money because if it's for the money don't do it because today dee danga koo def pour xaalis pour nga succeed it's gonna be tough it's a, it's a hard truth but I am saying it waxuma pur pur buken ubi? because mangi ubi? no I've been there that's the fact parce que in any business bu nga xamante ne danga bëgg a adventure danga war am know how of that business ak passion bi ak yooyu noonu soo waxee ne dama fii ñu bari loolu la xay jaay lekka dafa am dañuy gis ku nekk adventure jaay lekka at the end of the day dañoo close du jeex du xaaj ñi ñi ubbi close du jeex du xaaj and everyday people are opening and they are not really ba pare yow da nga war ñëw def visibility studies and see the area that you want to open the business, mm -hmm. how many restaurants are there? What are they selling? Are they selling the same products that you are selling? Plus, in Yundinyu Dimale, mm-hmm. because we do these wings. The wings here, everybody in the Gambia, mm-hmm. we can take, if nobody gives us the credit, we will take it. Mm-hmm. Because wings here, I can tell you now, Plaster Inn was the first selling these wings in 2013. 14. when we came here suñ ko daan jaay ñeneen ñi suñ ñëwaan sax dana ne lii dafa saf mooy the barbecue wings mm-hmm. and we just hunker it there top every year for the for good four years dama jëlee xaalis fële ma ñëw fay rent bi we were paying salaries regularly musuñ ñoo toog knock on wood musuñ ñoo toog a month boo xam wax nañ or not a month a day or two after on end of month eh, may leen ñu ba on the five or on the never knock on wood te loolu ndimbali yàlla tam mu ci am waaye man dama daan am na time yoo xam ne sax dama seen xaalis fii pour salary or Muhammad make money from nakala turati production and be move face salaries. You yep hell na si plaster in. Now knock on wood we're not doing that why it was very tough. The first four years, I can tell you that we were not seeing profit. We were drawing not even even, but we bring money and pay. So when you ask me, Nedangabuga Ubi restaurant, if you are somebody called hamne, you are open minded, you will take it seriously and work on it. And then see if you want to open, you open. Why restaurant? The part is tiring people are not léegi léegi pare ay xale yi kese nga dee jël fast food and it's so difficult to deal with kids léegi léegi you have to work with them because I do jàmbur lañ waaye tamit beneen affaire moo si when they go to work for a for an Indian restaurant they respect it more. because exactly. But here, if I tell you the amount of stuff that is getting, Lee Yahoo, a Fabari, and what can you do? I cannot, because most of them are my kids. What can I do? Nothing. So, so unless you went really extreme and do something, very seldom, I don't remember Fuma Fire in it. I can't remember Fuma Fire in it. But it's not easy either either eh, Mohammed Mom Nimde deal with stuff like that, he will give you less hours and then you will fire yourself. Mom Bobo Hangako Mom American la. He will give you less hours and then you fire yourself. Because so fair code ta five hundred wala thousand wala you you do you go. So Lulu yombut. So I'll tell everybody if you wanna adventure on the food business ba pare fi mu nekk Gambia dafa saturated ak ah, jamono bi xam ne ku ne xam ne everything is costly si marché bi ak yooyu noonu ndax da ngeen increase seen price si wala you still sell the same price comme ni ngeen ko daan sellee before ndaxte ku ne xam ne ne réew mi si jamono bu mu nekk ni everything is costly jëlee ko si ganaar wins oil everything wala sa bagage yi da ko dee jëlee fële mu ñëw te fële sax ku ne xam ne léegi things yi dañ well fi ma doon waxee sax du fii waaye still um, uh, things are expensive yes extremely expensive jaaykat bi si marché bi mun naa tëb rek mu yokka te dara du ko ci fekka but us owning owning a restaurant you cannot wake up and yokka parce que tey su ma ki nekk down the street table mm-hmm. I am a table mu ngi jaay xëj na suppa mm-hmm. moo xam lim si def mu ngi ko jaayee maybe 50 dollars or 100 dollars mm-hmm. ñun we cannot sell suppa kanja we sell suppa kanja for 250 250 two hundred mooy football bi fo plate that's what we sell it but suñ super kanja dañ ko di nduga nduga bu correct ko ko parce que ñun kër gi li ñoo jaay la ñoo jaay la ñoo so you cannot wake up rek nga yoga. we started everything at 150 lañ dooree one. Why can you imagine since 2013 we just put super kanja bi rek lañ def 250 because kanja bi dang dee dem mu dem to 600 pour benn pot dem na to bi ma they were selling at 600 pour benn pot guana ñu was 700 600 pour pot so nga soo dafa dangaa toog doo konte soo nekkee di yoka yoka yokk so from 150 New yokk a uh, mooy bi things already after covid New yokk to uh, 200 flat lañ def yeneen yëpp ay domoda cu yaasa ñu def ko 200 Why super be 250 but then you go to the market, Munolo wanyulu, because everything is is in, then could increase. Legi sakumalo, we used to buy the Saddam, now it's at three thousand three hundred. And then you come to the oil. ñun you suñuy toog a añ Do they use uh, oil uh, we use the the Do they use naka mostly canola oil dama ko dee faral di indi waaye suñ ko amul we use the sunflower oil duñ dee because bële doo ko toogee dafa nelaw te nga dem nit jënda lekka teg ko mu nelaw for me I wouldn't eat it so ñun dañ diwlin boobu bu leer bi moom lañ dee toogee añ bi ñoo tooga fii nii pour restaurant bi and that one léegi tane na sax because si marché bi you can get it at 500 while we were buying it at 700 uh, and uh, there's a lot of stuff you hamne you can name them you can't yep lola because and when you talk uh, Linda, naa wax mooy taxe bi ñoo fay pour indi bagage more share. Why it's not helping the restaurant because man de how much keneen the waaye man it's not helping me because we're buying nga dem ci full ganar bidan jar. 2000, 2003 legi is at 2400 pour bena carton yi ganaar full one bi moom laa jar léeg si 500 yooyu legi is 1150 nga ñëw si yapa same thing yoka 400 pour steak bi 350 pour ya so xam nga dafa dafa neexut neexut at all pour pour pour pour ñe moom restaurant yi te yaa ngi ma laaj ndax dañ dee yokka duñ mu a yokka because am na ku nekk down the street mu ngi jaay di same thing because ñeena ñi luy duga si seen biir bi dañ koo gestu ñeena ñi na seen biir fees rek because am na eh, somebody who xamoo benn bés benn waay dafa dugga si si restaurant bi fekk ñu ngi toog ci yàpp dee boobu mu ñëw mu ne dafa bugg a ciw yàppa mu ne ma ñaata ma ne ko 200 mu ne ma 200 ma ne ko waaw mu man 200 laa fi amee te dama war a paas ñu ba kaw ma ne ko ok joxeel li nga amee ma tegal la because I do that all the time ci restaurant bi because not just that because man doo dugga si restaurant bi when I stand there mm-hmm. doo dugga te doo jënda that's me because make an archie sales and I know what that is. I can talk people into buying. So ak tamit I do it for humanity tamit because mu ma wax ne ma lii la amee so the guy knew ñu womal ko jox ko mu tiba tiba ne ma gestu ma table fekk I was doing paperwork mu open a ëppa be jar na lii ba ëppa ko <laughs> mu lead Coco. She's one of our best customers now. quality quality. and mark you the restaurant we never advertise plaster ink never Them def advertisement nii Musudam. it's just word of mouth and the product speaks for itself liñ very seldom léegi léegi nak nga jënd du because dafa depends ci who is behind the scenes Well, when it comes to the African food very seldom benn benn like the. because I mean we live in the diaspora and we cook ñun dañ dee sauce and then why? Hamga, manko maa si uh, trade fair bi the fair ba a lot of people send leka iden dañ doon Why, African food punga punga stoko. you have to know what to do because soo ko toogee ba pare di nata <laughs> you think that you gonna think one thing i am like bu do i am like bu what you do and this is something I'm telling everybody that sells what you do finko toge, portion kufufu. it don't matter kana portion kufufu. let it cool off and put it in the freezer because you need dee tooga different façon so yow soo demee def ko si freezer fekk su seddee ba mu sedda nga def ko si freezer bi soo ko si léegi léegi ñu toog ba ngoon ñu tooga pour pour suba but what we do is liñ ko def rek waaye li ci ëpp yëpp man dama suñ ko toogee rek dama di nekk live and I show people waaye su dee ñaan ñetti tooga lañ tooga dañ dee def loolu because soo ko toogee ba génnee ko si sujeer bi nga portion ko bu nekka nga portion ko ba pare bàyyi ko mu seede nga frise ko soo ko génnee ëllëg teg ko waxuma nga génnee rek def ko ci suyeer bi noonu danga koo génnee mu toow nga tàngal ko it's like you just cook it man suma kër in Canada dama toog one month duma tooga jooy ma tooga suma tooga yi yëpp and I freeze it for one month I don't cook te suma ko génnee dafa fresh dafa mel ni léegi laa ko tooga ku dëkk out xam nga loolu léegi léegi nga gis <laughs> mooy nga am gan mu naan la duma lekka ñam bu fanaan but then you don't know what you talking about because ñam bu fanaan ak nga def nga preserve ko the right way you can eat it like a month you can eat it so loolu ñu bari daf leen dal ci street fair bi and seen lekka yu bari ñu yaaxu because they don't understand it parce que man tey duma duma nekkuma ci marché pour teg teg manda di tibba di jaay loolu su jeexut su doon loolu laay def su jeexut ma def loolu dama ko maye duma ko frise ma teg nii plate bu mag def si lekka may nata di jaay nata di jaay after five six hours I wouldn't be able to sell that anymore because dafa foment su seedee rek dafa door di four. man dam trade fair bi dangay gis ebe yuy four. but because understand ebe bi tooga nga ko jël ko tiba ko mu sedda nga dugal ko si freezer bi ku ñëw nga génnee tàngalal ko you have microwave or you can put it mu seey nga teg ko ci sujeer tàngal ko waaye nii ngaa gisee ñu jël ko ëllëg si ñu tegaat ebe bi di ko jaay muy fuur xam nga loolu mun nga am food poisoning true that exactly that's why I'm talking looloo tax may wax lii ku ko dégg nag bul ko jisee ne am attacking anybody it's just loo xam ne xëj na understand nuñ man ay no food moo tax may wax lii and it helps a lot ñun in America we have walk in closets yoo xam ne cold food la dégg ma ne closet walk in cooler yuñ am foofu noonu dangaa dugga dafa mel ni freezer foofu lañoo ñoo dugal lekka yi su suñ ko toogee dañ ko dee su fa lañ ko nga you can reheat it tomorrow and put it on the line or wherever you are doing su fekkee ne thing um, that not not like uh, cafeteria you can do that so mooy loolu si ñaata place fi mu nekk nii place restaurant well right now Mohammed is opening another one but that is a full-fledged restaurant that's different from Plaster Inc mm-hmm is at the turntable, It's well equipped, very nice, and uh, it's really halis bu bari for dugal but it's very Bobo Mouhamed moo mu ngi si Afra FM nekon si turntable mm-hmm. right there foofu noonu la plus the ink is moving to another location which we are fixing right now but ni ngeen lu seen customer yi wala. because plaster ink ni mel is made to order people call. most of our clients dañ dee call. very seldom nga gis ku ñëw rek xanaa many, ni comme mel um, um, motel yu nekk area boobu léegi léegi Sénégalais yi suñ ñëwee day pop in waaye li ci ëpp yëpp people call ba pare we are on the same street moving it's like two minutes from fi nekkoon so it's not a big deal. And I'm not scared because when I started that restaurant, it was tough. Mm-hmm. You rek on turntable there was no restaurant there mm-hmm. on turntable and business neko for once. sax bi ñoo nekk 20 13 20 14 because dama fa ubi one. li fi na culturati uh, beauty plus di jai affaire kawari kawar yi diw yi laa no why. I opened Lola and njëkk opened 2013 and then balaa 2013 bi just like Obi Beauty Plus bi I had it until um, 2019 laa like laa because it was everybody was selling See, Coin B. You know, this next door to me is buying from me and selling because man dama daan import a lot of stuff fii lu nekk lañ daan jaay diwi yaram spray Straight in here, it was very well known but then being hung after Jammeh si la bi Jammeh everybody start Why that is good too waaye dangaa gis ne dangaa toog suba bi ngoon doo gis njarte ay na ay benn thousand oo benn lu ñàkk fay dangaa jai. The man am a kind of person when I don't make money I'm not interested in it so you ñu ma yenn yi ma maye yenn ma jaay and close it because believe me, even biñ ko am sa every every year dinañ daan def like once or twice dinañ déene ci biti product bi su fa wow, waaw su fa amee because products yooyu noonu seen lifespan bi good. So bañee jaay lu expire lang ñoo jàppale because I mean leaving everything over there and coming here is not easy but alhamdulillah ñu ngi sant yàlla. da ngeen dee jaay 24 hours. yeah the Plaster Inn Cafe eh, the rest the the the fast food one mooy bu bi is 24 hours and the one Muhammad is opening it's not Plaza Inn it's another name but boobu tamit is gonna be 24 hours for the starting so they gonna see how it works parce que full French restaurant la boo you just come and sit down and order and the chef chef moo fa it's not like Plaster in Cafe where you know it's just young kids ñoo fa is a real chef moo fa and make the orders I wish we can pop there and you see maybe bu dem joxe ndogu we can pop there and you see but the other one is not yet ready but it's almost ready Why the farms you sell you for nekk You want a light here, you? because we make it more um, look like more professional there mm-hmm. than now because be building be the farm market, and the owner don't repair mm-hmm. so we have a that's why and then <laughs> Gambia Legi, they am sa place need ñëw fay soup because they want the spot mm-hmm. and we've been there for since, like I said, 2013, mm -hmm. and the, you know, 400,000. And I'm talking about this because I need the government to hear this. Mm -hmm. 400,000 for a small sport, Bohamne, it doesn't worth it. Mm -hmm. And nobody is doing anything, like 400,000 a year. loolu tamit bokana, yang yaa ngi doon wax di rent bi bokk because doo mun a ubbi ngay fay rent boo xam ne mooy loolu four nga wax ne nit ki mu fay la ko from fifty thousand de maak yu loolu lañ daan fay di crib every year mu ñëw yokk a every year mu ñëw yokk a fifty pare mm-hmm. most of the shop owners gis nañ de nit yi dañoo pay in dollars wala in pounds or in euros te ñu si Gambia non loolu it's not ñi ñoo coffee, borom place yi because man I wanted a place in Senegambia I wanted a place in Senegambia for the longest but I refuse to pay in euro or in dollars or in dollars I refuse to do that because plus bi ma am man daf ma dollars ma ne ok ñaata la in dollars mu wax ma ko Canada maa ngi so when I came, I'm going to contact the guy, put them, the um, put new sign contract and all that. Eh, munema from $500,000 because the first share, which I understand. mu ne dama ko seven thousand seven hundred thousand mu because dollar pound be the for ma ne but then yo you are telling me ne I don't have a fix. Yo, yearly, because whenever the the dollar or the pound increases, so my rent will increase. Monaco, is that allowed in the Gambia? Mune, well, that's what the owner wants. And if you don't take it, this is from the, the agent, uh, the Indians will take it. Not the agent, mune ma soko jelut, Indians yi dinañ ko ejeni yahuñ ko fii dafa neexut a wax Indians they control the country I'm sorry baala Do do du because lead of the yaa and everybody is watching it's very sad yow doomi and be yu bari you cannot do it Why? let's go back to our interview and leave that alone Euh, xam naa ne dinaa laal si loolu tuuti sax parce que anti yaasin muñ xam anti yaasin gis nga ko struggle bi yaa ngi si woon most of the people suñ la xamee si Facebook bi ak yooyu noonu during Jammeh time ak yëpp impact bi yëpp yaa ngi si woon everything da nga dee génn nga wax bot léegi dañ gis ne you are not involved much lu xew. waaye suraay ak Gambie bi ni moo demee nii. because amul benn njëriñ parce xam nga. dafa ne nga nekk ci dëkka nga yëg sa bopp ci dëkka bi xam nga dafa am lu ma fi bëggoon not necessarily ne I did something for to get something but with my knowledge I wanted to open a school here and uh, when I went to the individual kuma dealer with I'm not gonna name names but ndeke ñoom ñu ma doon signaler ne dama war a def kickback but man I didn't understand that crap bala leen ma ci wax bi waaye I mean daf ma ne ma demal waxa um, PAM sec bi xaw ma kan ci ñooñu and then when I went there kooku indirectly moo ne xam nga affaire yi daf dee slow foog nga waxa xam nga mooy rek nuyoo murit bi mm. man after laa jëli ne kii lii la doon wax so why wouldn't you man ñaanuma la ne la nga jox ma xaalis pour ma def ko I'm not begging anybody for that just to because fuck nga dem naka la turaati um, si higher education or I don't know who is handling that part which I did but then ñu nasaxaal ko noonu was saying uh, it was not easy and then they kind of turned me down indirectly. But that's what they did. But man, I could have still DEFCO. Why? Duko de what yene. Because yange buga lolu smoko defon dina dimale ñu Because Hale yubari bari ka drop out man dama ko seet even xale yi yi laa wax they are from the university dañoo ñëw di liggéey ñeena ñi ne catering lañ def ñeena ñi hospitality and then most of them they are not no nekku fa so you help them xale yu bari they went through there and right now I can trust them and leave them in that kitchen and then they will do the orders right guidance bu ma leen di guide one leen and uh, I mean réccuwuma loolu Why? xam nga mënoon nañ cee sudut dara sax waaye the average people fii buñ buñ la dimbalee dañoo foog ne you gonna be better than them te demeewut noonu dafa des si for the lan laa ladef. so ma jeexal si loolu foog ne ok I forgot about them I don't may def iftar be. This was all in 2017, my def iftar bi because iftar bi uh, dooruñ si waxam sax mm-hmm. I started this 2017 mm-hmm. bu ma ko start li ma inspire to do this mm-hmm. iftar mooy I was doing the impasse di dem at first before ma join this day job bu ma doon about man dama doon dem di jëna distribute, <coughs> and then I saw the diaspora Nyuge, Nyuge, Nyuge, because I was not in that group. Mm -hmm. So my Gislen online, Nyuge collect donation mm -hmm. pour dimbale eh, not neither one because it was very crucial that time. Nobody they did not know. So many times people want me, naturally, Junja Tuti, like, why do I see they were because during the impasse when I because I'm suba gis so rotalee pour sa nga dégga ko all over the Gambia because man dama ñëw fii on the ninth on the tenth si la jàmmee null Nolan Void and I thought I was going to be arrested to be honest with you because I was very vocal on social media so why luckily for me he got a bigger fish to go after taluma because man musuma ko saaga to be honest with you never so ma génna ma ne lii la so maa ngi àndaa suma mail bi ñu ngi dem uti mbuuru amuñ ñu daw daw daw ba bi Joswang amuñ ma dugga ñu Joswang fekk ñuy jaay mbuuru ma ramassé ko because suma koñ bi kenn lekkul amuñ because dara moovut nothing so ma jëndal loolu noonu yëpp ma ñëw ma distribute ko si ma joxe ko that time I wasn't in the group like I said mm-hmm. and then Ndeye Jobaate call ma ne ma anti Yaasin ñu dey eh, ñi nekk ci diaspora bi nekkoon Gambie yëpp daw nañ gisuñ kenn foofu ndax doom mayen pour téyel ñu foofu because people are needing stuff te xamuñ naka lañ ko defee ma ne ko Ndeye come on you don't have to ask twice ma ne ko I am here so mu ne ma mu ne ma mu ne ma but it's dangerous ma ne ko dee benn la I mean if I have to die in the process it's for my country I will do it so noonu laa tekee over ma ne ko man nag maa ngi leen bëgg a eh, jox a little money bu ma fi amee because dama ñëwoon pour door benn project fii so ma ne ko maa ngi amee some xaalis mun naa leen a jàppale mu ne ma mu ne ma waaye naka lañ ko jotee ma ne ko I don't know boobu kenn mënut a dem fenn even Karang ak yeneen because man at at maa ngi woon Jibooro laa beesoon so ma ne ok léegi ma ne ko kon xam nga lu maa def let me go to Red Cross fekk suma benn jarbaat xaw ma ex jabar mu ma seet si ma ne ko kaay gunge ma ma wax ndey ma ne ko let me go to Red Cross and I give them this bi ma wax loolu rek ma fekk maa ngi ko def on on my page mm-hmm. uh, Ami Jay Atlanta mu call ma ne ma dafa bugg a dimbale dinañu jox this amount of money uh, kii tamit um uh, kii blessing loppi hadi loppi mom tam mu ne ma dinañu dimbale and then my niece tamit mu ne dina dimbale so I collected about man ten laa joxe kii joxe five kii joxe four kële joxe one muy twenty thousand so ma ne ko ma ne ndey maa ngi amee bi fan laa ko war joxe because they will needed tent they needed a lot of stuff ba people are ñu ngi wasin ñi I mean people were losing their lives ci loolu so eh, ma ne ko léegi maa ngi amee bi te man mënumaa dem ci benn border because every soldiers yaa ngi koona bu nekk so mune ma mune ne ma ne ko léegi xam nga lu ma suggest ma ko xaaral ma yóbbu ko Red Cross Red Cross can come over so no laa the Red Cross my jox leen xaalis and when I gave them the money I was expecting them pull ñu jënda the stuff they need this I will say loud and clear because that was not okay ma and Harris xaalis 20000 cash laa but then I had it on mu page you can see it I had it on camera Come on, when I deal with stuff you know, I want it live everybody say it parce que xaalis bu xam ne dafay ñëw yàqa der xaalis dafa gaaw a and yes it's part of part of it is mine but I is for the for the um, emergency biñ amoon léegi ma jox leen ko ñoom ma call guy yi ne leen ndax Red Cross indi nañ fii ay stuff ñu ne ma ndox lañ fi indi I was furious so I went back there to Red Cross Mane, mane len, ne ma turi ndaw si man ma ko man dama leen jox xaalis pour ma ko fi mu ni state of emergency la Gambia toolu Before makuru, ma xuloo ma ko xaalis bi jox it is for um, borders yi because ñu ngi nit lu bari ba pare Ken, mark you nobody was helping Gambia Ken nekku doon di dimbale Gambia ndimbal bi bi jàmmee out even the people that have money in this country am na si few yu ma contact kenn ki doon act like somebody I don't know want something from him te nit a ma jox ndombaam ma call ko ñu mu kind of I don't know what he was doing why that's his problem so man nekkaatuma di call kenn and then mu ñu ñu lifin mu ne ma mu ne ma waaw xam nga ñun kenn duñu dee dimbale Red Cross fii eh, dama jël ci dañ ko def for salaries this from the lady momo moo wax loolu but ne Gambia is at a state of emergency and this money was for that you need we need water they need water they need tents they need blankets they need a lot of stuff got la 20 bi bariwut Why? that's what we have so far we collected the, the, the, the diasporan group collected 40,000 US dollars. Mom collect all together. And that was what helped the Gambia at that moment. Do do borom xaalis yi ci bi. Mm-hmm. everybody maa ngi life I'm not I'm not screening what I'm saying but this is the fact Do do do du Gambien yi do Sénégalais after. Sénégal I heard they were helping waaye loolu fekk Gambian si nekk diaspora be definitely send all. The te lii dafa fekk diaspora be definitely before the mm. election be and all that this is just the emergency that that few Gambians gathered forty thousand US dollars and new ñu jafee ko ci man after I was at Jiboro full laa demoon base and we were we were very lucky impasse bi lasted two three days ni ko noonu dina doon very chaos bu mag la doon indi ci bi because man su ma daan war a mbuuru I have to do it midnight gaa ngi ngeen nëbbu ñemeñuñ pour dem everybody everything was at a standstill so benn jigéen bu dëkk next to the um, place bu jaay mbuuru kooku moom moom laa daan jox xaalis bi moom mu dem ci guddi gi ñu jox ko ko mu yóbbu ko kiram ñun suba ñu dem jël ko and then we went eh, bi bi gars yi returnees yi bi jàmme demee returnees and that's when I start seeing everybody coming out di génnee ma ne look at this maybe they were scared of Jammeh I don't know waaye was disaster mënoon naa am ñun ba pare ñooñu ñoo nekka di di lekka di fruit of the labour boo xam ne they did not work for it I mean I am not mad because who am I when I'm working, I don't depend on anybody. I depend on my family, my husband and my children. yow gis nga ne Gambians in general luñ luñ fought for what it or what. different ne am any different by the government or the present. du ma wax ne what ko What na What woot na liñ fought for to be honest with you what na Why? waaye dafa am lu warugal yu nit war a def te defuñ because su fekkee ne nit ñi dañ xeex for certain things nga jël ñoo xam ne they were dining and wining with Jammeh nga jël leen di di rob mud on people's face ñi nga xam ne ñoo ñoom lañ rey seen man luckily nobody killed my family member I was just a citizen bu concern Why? I think the government need to do more that's what I can say ba e pare ni dëkk bi di demee ni my dear is just waiting for disaster to happen ngeen jégal ma ñaanuma ko yàlla waaye ku gis ni dëkk bi di demee because xëj na man am naa lu ma lekka waaye am na ñu bari bala nga koo xam nga génn ci mbedd bi gis ñi lay taalal loxo sànqa sànqa benn booy daf ma di sonal ci yoon bi nii mu ñëw taxaw ma am hungry can you imagine kooku yaa du gambien waaye dafa bàyyi yaay bàyyi baay dëkka man sometimes I do stuff because I have children te kenn xamul fan na suma doom di mujjee ëllëg moo tax yenn yu bari duma ko dee ignore so yalwaan bi dafa bari si mbedda bi ba pare um, nit ñi bañu ñoo dem def dara jisuñ luñ def nga am ku ne léeg nga léegaaral di war a joxe yaay war a joxe baay xam nga sànq maa doon wax li ma motivate ba may def lii it was foofu la triggeré because dama doon dugga si biir ay Igbo town after bu impasse bi jeexee dama daan dem ma jënda jënda ay maalo jënda diwlin dugga ay Igbo town ay ci yooyu noonu fu nga xam ne they are forgotten area yoo xam ne pour dëkk fa sax it's it's just sad nga gis yenn nit ñi niñ dëkkee I go there benn xale mu ne ma man maay head of household bi si fii waaye pour five dalasi bu ma jëndee mbuuru sax daf maa coow these were the things yi tax ma door di joxe this ba pare mu ngi tombee right after lii Ramadan bi ñëw so ma ne the least I can do is lii mm-hmm. because I ma awma ma millions yu ma teg pour jox the whole Gambia why the little I can do is suma touche bena bena nitsa, I am happy So the bena nit laa feed I am happy in Senegal people that are doing what I'm doing nguur gi dañoo ñëw nga binda nit sax pour sponsor ñu ngi laa ignore but then man motor must stop But this year I've been at why for the past three years I wasn't asking for anybody to sponsor me mm-hmm. it's not like ne been a millionaire but talk. no i maa ngi sant yàlla waaye dafa bahon man laajuma and I make it very clear su dee da nga foog ne kii su ma ko joxee 50000 dama koo def mu rich yaa na nax sa because man balaa loolu maa ngi lekk maa ngi man dama ko def mu easy you give us stuff. You don't have to join you 50,000. You don't have to join you 10,000. You don't. Buy, buy rice, buy oil, buy what do you call it, naka, sugar, flour every three days. This every three days. Then they use sako, bena sako, every three days. Three or two and a half days, la them. Muje. Eh, eh, bi kune ne benn ko def si ko def every day twenty nine days since I started this musuma te dama dee ñaan yàlla this year is tougher for me because maa move the rent is expensive I have to pay cash down for the rent for the rent over there ñaari um, store yi ma am because I am opening to sell other stuff Buma start same area because we had two sh two shops Finnecon. So we have another two shops, and I, I have to pay for all that. The pare be very koor before very koor start dama jënda ay malo ay diwlin ay yep laa jënda with my own money I bought all that ma ko so ku ma the daf dafa yokka dafa tax ñu mun def because soo said I wish you came early but just yi ñoo def liñ spend daily is very expensive but Santa Yala, but don't don't get me wrong am the your hamne. they are very um, loyal to Yasin's Kitchen feeding programme bi uh, one like um, Omar he's a he's a he's a nephew suma jëkkër la docteur la jabaram docteur la jabaram suma first cousin euh, yaayam suma first cousin la ñooñu every every Ramadan they will send five hundred dollars which is close to uh, 20 or 30,000, I don't know, $500 because dollar B is like, I think 60, 66, something like that. Every Ramadan since I started it. I'm Kenyan. mostly my family. am naka la tuddaati um, am na koo xam ne I don't wanna name her name because bugut kooku daf dee joxe charity bu bari mm-hmm. ev kooku three years ago or four three years ago suma remember mm-hmm. xawma ko musuma koo gis mm-hmm. jigéen la dafa ma gis ci Facebook bi rek call ma ne dafa bugg a dimbale ñu baañi ñu ngi fi de ne dafa bugg a dimbale and li tuuti ba tuuti ten thousand jox na daf ñu ko day jox every Ramadan xam nga loolu foog sa xol joxe lekka saraxe lekka saraxe génne xaalis foog nga am the heart if you don't have it you won't do it ma am suma beneen doom ku ñoo wax raps njaay on social media mitaguma ko yaayam nag suma childhood friend la ñoo ñu xaleel yaa ndoor kooku moo njëkk a génnee 25000 mu yónnee mu jox ñu ko ñu def ko ci yokk ko suñu bi and you have a lot of them ñeneen ñi di suma yena a they are in Seattle yeah they are in Seattle they sent me almost um eleven or how many ñaar nga ñu bari ñu ñu ñu ngi mm-hmm. ñu bari ñi ci jàpput kay te ñooñu blame ma leen mooy big business men yi fii because everybody ku ku ku def charity dañ go ne me ak sponsor moo ko dee and everybody they are going to. Eh, ñi am halis fiw so ñëpp suñ demee si ñooñu ñooñu madina yàggee mbaa am dara Motaman man when they don't sponsor me I don't get mad because I understand ne I'm looking it at my own point man kunyo onchi man tusu di ma sponsor may johe su yàggee dinaa ko xaw a business ne kudi dem on so mota I'm not really crazy about them Why fi maa waxee ne mënoon nañ see jàppa mm-hmm. mm-hmm. Moi a like even the government could have mm-hmm. just ñëw wàccee i am na benn yee xaadim gay na new lifin ñaata new dool ten saaku ak how many five sa xaw ma remember remember na new lulu mom. that's like twenty nine déedéet twenty twenty four foog na 2020, if I remember, he gave us that and 10,000 cash. That's what the guy that he gave the stuff gave to us, which we appreciate. But that's about it. Mom, I went there this time to what uh, people were acting like young, you know, poor extort or whatever. Man, I left. yow danga make simple to them. sax jëndal bagage Gambia bi Eh, soo joxee nit xaalis nga foog ne jox nga ko xaalis bi bare bari su jëndee stuff yi at the end of the day sax du mu exactly I may def li maa def man dama di jënd suma bagaas teg toog di xaar ba pare léegi-léegi nga gis am na benn ku ma a interview di ma wax ne dafa dégg ne eh, organisation bi am ni people are making money jënd naa ci moto jënd naa ci ay laaf No, I laugh because I'm like, I'm not going to respond to that because su fekkee loolu la Moham, ki Mota moo xam mhm. man yàlla moo may def mhm. yàlla xam na te dom aadama taxut ma def doom aadama tax na ma def ci kaw ay fiidam mhm. but bu fekkee ne lu nit wax nga tontu man social media ken musuma gis ma dem di defante te duma ko ñaanuma ko yàlla sax because I'm bigger than that but liñ war a bàyyi because am na xale boo xam ne suma xaleel la mu ngi dëkk uh, Austria uh, daf dee ñëw ci restaurant bi all the time mu ne li tax du dee sponsor fekk dama ko sen dama dee sen daf dee nekk auto sen mm-hmm. dama ko ko sen pour suñ iftaar bi mm-hmm. mu ne ma mu ne Yaasin you know why I don't do this ma ne ko no tell me mu ne because people make money of it ma ne ko you have a wrong concept ma ne ko that's that's that's that's not yow um you're not making money from it parce que ku nekk di def lii léegi depuis 2017 to date loolu yàggal am na ñi nga xamante ne nit yi dañ dee préfère eh, jox leen seen xaalis yi pour ñu dimbale nit yi waaye ndimbal bi du dee egga like you mentioned earlier comme ni nga ko waxee si Red Cross da nga leen joxoon pour gars yi dañ leen li ngeen dajale ñu jox leen ko pour ñu jëndal ñi ay stuff ay blanket ak yooyu noonu waaye demeewul fa noonu so lot of people especially sa morom yi nekk si diaspora bi ak ñeneen dañ dee experience su demee nii eh, comme am na maa ngi ko doon suma benn programme this go meetings yaa xana dëkk bi ak charity organisation si wala nit di ut ndimbal la ko si kenn li tax nit di joxe ndimbal boobu noonu du egga si kañ ko wara jox ñom dañ koy jël instead di ci dibalobé sen bopa suñ la joxé ten ñu jox la tri wala duñ la jox lu nga xamantene sax nit yi joxé nañ ko at the end of the day ku ñoo dimbalé sax du dé gis bopam sin dimbal bi te turam la ñoo use dañ dé gis uh, stuff yu melni. Uh, every day hamna yo yo active in social media hamna na né fu songi légo lég da ko dé comme across No, man, do bay bay help. When you gis ni on social media, anything that's negative, that's not me. I don't, I don't watch that. I don't I don't I don't even click on it. But para manekuma social media like people think. Source by hell, I I when I do Facebook Live, mm -hmm. I do like do sus legi. kaba I used to show my face, while legi I don't. I'm old. By na ko halei. And secondly, lima def is just for jai. Jai my products. Jai the food that I sell. That's what I do. Halei di toga ma def ah, te do du passé five minutes three minutes five minutes i am out Bala nit di door di duga man génn because I am not into it moo be pare buguma yëfi negative man dama I hate negative. lu négatif dama ko bañ moo tax yu bari duma ci dee dugal when people post me such questions it make me laugh yeah yange ngee wax ne xëj na yow doo ko dee def man I don't have to prove anything because hale yi toga but hale pare toga fi ma toogal ñi ma is eight of them each of them I pay them three thousand after the Ramadan it's not for free they are working at the cafe but I pay them the food, pour toogi iftar bi mm. ba pare ñii ñaar ñiy tooga ci na bi they get more money noonu laa ko dee every year so to amna ñoo xam ne mus na ñoo daan ñëw ci fii ñuy ma doon laaj ñoom dañ dee dem joxe ay tiya mbuuro yooyu noonu si mbeere bi su dama leen ax ñëw leen because it's just charity ñun liñ tooga ñu jox leen boole ñoom ñu yóbbu but he wanted some people to help him muy may laaj ma ne ko let me tell you this is not easy su fekkee ne you cannot because man gëmuma ci di def loo xam ne ko su fekkee ne Munumako, lima mun def this year what I do I do because it's very tough for me this year so what I do not because of people are not donating but because I am doing a lot like I was telling you some rent nyari rent I have to pay it up front and that's a lot of money it's not a small money boutique bu nekk dama ko pay up front and I was finishing something else that I was doing I don't need to say it in here yooyu yëpp is a lot of money li ma usually li ma dee dajale dama ko dee su may ñëw fii dama am a budget ba ba ma fee jógee eight months laa fi dee am de iftar dafa am own budget am because soo amee business ba at bi jeex charity daf la war sa da nga war a génne sara loolu dañ ko dee tegee boor waaye this year is a less is less because of yu bari yim yi ñi engage into because xaalis bu bari lañ génnee pour liñ bugg a def nii li ñoo def not iftar bi but yiñ doon def prior to the iftar so and then other things yoo xam ne we have to take care of moo tax xaalis yi usually mun naa tooga ba ten or fifteen days I don't even need anybody to donate me because of ñu ngi ko fa teg that being said loolu taxut ñi wo ñi bugg a def ñu ngee def bente ñu ngee indi seen xaalis ñu ngee donate GoFundMe bi xaalis yi fa nekk yi ëpp yëpp yi nit seen la not yuñ def yi soo compter yi nga xam ne directly GoFundMe lañ dem very few la soo seetee yenn yi nit ñi dañ yónnee xaalis bi but we are transparent lépp lu nit yónnee di nga gis suñ bindu sa tur nañ fa bind anonymous but soo gisee amount bi di nga xam ne yow la amul benn xaalis buñ ñoo yónnee bu ñoo téye te dugaluñ ko ci GoFundMe bi moo tax at the end of the year su Ramadan, then they break down everything and put the whole thing there for everybody to see. ñun suñ own xaalis suma doom yi rek suma doom yi barka démba lañ ma jox 25000 ñoom ñëpp ñoo ko teg jox ma ko xam nga I'm not alone in it ak nit ñu baax ñi nga xam ne xawma leen from Adam am na ku ñoo ooyee Xadi Njaay xaw ma ko xam naa ko nii rek waaye not like that Maybe bi su ma ko gisee dinaa ko xam daf ma kool rek ne daf ñu bëgg dimbale dafa am ku ko seen link bi mu to ma mu ñu Benito Mbay every year on Benito Nderi Mbay every year ñoo dëkkoon Norway every year she will she will give us something so I'm nga it's not it's not I'm I'm really not alone in this. yombut waaye we're doing it. staff bi ngeen nga dee tàggat jumaa yi jàkka yi wala nga dee sa certain family yi nga xamante ne danga leen dee feed ba weeri koor bi jee wala mbeeda yi stuff family yi ñoo feed gis nga mbala nga ko xam nga fekkee suñ dee yëkka because neighborhood bi ak ñii dimbale ñëpp loolu rek by itself am na ñaar ñoo xam ne suñ leen yëkkalee dañoo dem feed seen family and they are maybe family of six ñoom and then li ñu li amut ben nit bu ma tàgget xam nga am na benn year bu ma defoon dama daan dem fekki leen this year because of my car is having issues so I could not do it because Munuma daw distance bu sori with my car so I have to dem si gox yi ba pare su fekkee ne xale yi dañ soona I just call the the people like daara yiñ dee dem yóbbu nañ si ñaari daara agum dañ dee def yenn ay betteen daara di si xaw ma dañ nañ ko mun a def liñ dee def rek mooy call leen ñoom ñu ñëw jëlsi ko ñu tooga ba pare ñu call leen ñoom ñu ñëw jëlsi ko def nañ ko two days in a row daara Brufut ak daara bu nekk Costa Road ci biir every year dañ fa dee yóbbu tam am na ñu ngi war a dem si daara jigéen ñi ak Jalamba ah, foofu foofu ñetti daara lañ fa dee yóbbu jox leen ko yóbbu nañ Baatakunku because Baatakunku li tax demuma fa di se soriwul waaye because jabar yi alkaali bi koo xam ne was very very active and all that dee si car accident bu bu serious young lady mayu ma ma dem because suñ demaan lu nekk dafay génnee jay na ba lu nekk laa génne yeneen fii laa ñëw toog ñuy waxtaan te da bi lekk bi pare mu mu taal moto mu yóbbu so that person demuñ fa last year dem nañ ba fii Arafat Arafat boori Kawur noonu dañ we went there for three days and tooga fa why because this year like I said my car is not that great so ba pare is gonna be expensive su ma buggee because dama luye woon moto and pay for three days and it's close to like 10,000 to do that, just to go there. So Malta this year, I don't know, maybe I will, I'm not sure, because xale yi mooy loolu because dafa put them dem you pare yëpp dañ ko dee yóbbu bagages yi ñoo toogee yëpp ñoom seen sujeer yi rek lañ ñoo jox waaye lekka yi yëpp ñun ñoo ko maalo yi diwlin yi ganaar yi dañ yóbbu first day bi waaye then ñu wax ñu ne mun nañoo jënda from Kawur are from Farafenye. So the second day, that's what we did. Because oh, the inko freeze yóbbu boko deful dara suba si biñ eewoo eh, rek mu ngi bente benn eh, tey ñu raxas yalandiwaat ko because dañ ko yep frisco, So we went and used, but then we did three days for them. And it was very, very mm, experience wonderful boo hamne eh, ne nata. And uh, then they dem si gohi, yi dem nañ dem turntable dem ñaari fan xam nga lii def dee baax nga léegi-léegi nga wax sa experience um, ni nga dem through ak when people see you they know ne you work hard you don't just sit down and relax um, I am 64 this year and I'm still working so pour pour make dara you have to work and kuma xam in Atlanta and all over fuma musa deka dëkka is like work work work and it shall pay that's what I can tell. everybody dimbale what will be your message. my message ci ñoom mooy buñ discourage if they wanna do this what I'm doing and if they wanna help let them help buñ déglu lu nit di wax parce que su dimbale ma man bàkkaar bi man maa ko enu waaye bu fekkee ne yow danga jël eh, sa xaalis nga def ko fi ñu def ko bàkkaar bi ñun ñëpp xaw ma tiyaabo bi ñun ñëpp ñoo ko bokka so bu loolu discourage nit ñi because ñu bari ñu ngi foofu amuñ kuñ yónnee fii ak ñun dañ la wax soo ñu joxee ñun dañ ko tooga soo ñu waxee fuñ ko yóbbu ñu yóbbul la ko so di leen wax ne rek it's a it's a just cause cause boo xam ne la it's near dear to my heart um, caxaneewuma ko dama ko dee def with my heart so bu can kenn discourage pour soo leen buggee support su fekkut ne Yacines Kitchen feeding programme ngeen bugg support mun ngeen dem ci keneen kuy def iftar ngeen support ko I mean loolu dula la dara te pare ñun we make it very very clear ñun yaajun nit ñi ay million or ay thousands ten dollar five dollar loo am pour mun a dimbale na fekk mu jóge ci sa xol because soo jëlee ay hundreds of dollars te fekk sa kër lekkuñ loolu tamit ñun bugguñ bëgguñ loolu because joxe bi nga joxe dafa fekk sa kër ok so moo tax ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a joxe te amuñ ko ñun ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokka leen so this is this is soo ko munta defee you can go to the mosque we used to do the mosque Why mosque be tamit ulita ñu stop ko dangaa joxe ñu jëlagum yëpp tegal ko pour imam bi tegal ñi ñeneen ñi war a am duñ am first year that's what happened to us so ñun ñu change we don't do that dañoo tooga The pare you can give the rice and all that yes you can waaye ñeneen ñi danga leen koo jox sax ñu jël ko dem defee ko leneen jaay maalo mi also waaye ñun li ñoo def mooy tooga because su nga ko toogee defal la ko si plat di nga ko lekka unless otherwise and I mean mooy loolu rek di leen wax jërëjën jëf yéen ñi nga xam ne yéen a jàpp si Yasin's Kitchen waaw yéen mi nga xam ne yéen a jàpp ci Yasin's Kitchen ñu ngi leen di wax thank you very much yal na leen yàlla jàppale loo leen si def bu rëy boo leen ci def yàlla na yokku ba ngeen yëg ko set setadi Yekko, seetaat yi yëg ko si barki salaatul faatiha and I can say thank you thank you very much bu amul àppa